costume Balla gay bi ba pare Balla Gaye déggoo tubaab doo wax olof je suis responsable Modou Lo il est responsable les fans club ce sont des responsables mais lutte gi lan la ci responsabilité gi di def man responsabilité la yow responsabilité nga Modou Lo ñëw toog créé fo lu bees tàq parcelle 1 ba 21 man yii koñ man man man <laughs> mystique déjà commencé na leen jàpp ñoom boo gisee costume Balla Gaye gi xam ni mystiquement jàpp nañ ko Modou loo ni mu waxee un ba vingt nga xam ni ñoom ñu ngi atteindre te mystique man yooyu signature du ma ci dem yàlla na yàlla defal leen jàmm e combat bi zéro violence ah ñu kaf ko reetaan ko parce que lii fête la lii c'est une fête ah, euh, lii lu ne mën na ci lii lu ne mën na ci am lii ñi xuloo woon sax mën nañu woo ba ñu jubóo leen et parce que ñoom ñaari mbër yi am nañ ci benn rôle bu am solo boo xam ne war nañ ko jouer parce que biir kër goo dugg biir kër goo dugg am na fa ku faral Modou ak koo xam ne Balla Gaye la faral donc yéen ñaar war ngeen a teel a jël seen ay responsabilités euh, ngeen xoolaat seen communication bu baax xoolaat entourage bi parce que seen xeex yooyu ngeen di def yu ndaw ndawaan yooyu mën na di dem di dem di dem ba ci ay biiri kër donc bàyyi leen xel ci loolu bu baax a baax et que le meilleur wax moo ma waxee que le sax am na foo xam ni foofu laa xar foofu laa far mais gars yi xam euh, xam nañ euh, en tout cas kenn ki sama xarit la dëgg kenn ki sama mbër la <laughs> waaw lii la yàlla def man ni dong la ayca yàlla na yàlla defal jàmm ñoom ñaari mbër yooyu léegi